jërë ngeen jëf mbokk yi xaritu internet yi salaamaaleykum fu ngeen mënti nekk ñu nuyu leen bu baax am mbégte bu baax tey jii janook omoro mu Serigne Saliou le porte parole de Waly Balago Seck mais aussi euh, le porte parole sunu papa ji nga xam ne moom moo fi jógee di feu Mamadou Yatassay euh, tey jii nag ñu ñëwoon toute la presse euh, set si ko woon jaale si ko waale ak toute la famille donc ñu fekk fi Omaro mu Serigne Saliou war ko moom aussi jël jaalu presse bi yëpp teg ko sa hmm. loxo parce que yow yaay porte parole Mamadou Yatassay ñu la koy jaalewaat bu baax Omaro ndeysaan kontaan naa fii sama xol sedd na maa ngi la koy jaale parce que moom Momadou sa baay la te baay la ci ñu bari ñi taxaw nii ci presse bi. parce que tey bari na ci taxawaay yoo am solo yoo xam ne am na ko ci wàllu carrière politique am lépp luñ ci wax wala ñu def ko mag yéen ko ànd. ci conférence de presse yi ci lancement yi ci investiture yi lépp ñëw ngeen taxaw dëggal seen bopp dooleel ko sotle ko jàppale ko kon tey bu yàlla dogalee. mu génn àddina ngeen ñëw jaala si ko indi seen soutien indi seen doole te damay wax bis bu set ci télé bi ne doomu aadama bu ne la nga am ngay teralee Mamadou tey mun leen ko defal dara lu dul lii parce que lii ngeen am te it noonu la ko fonkee ci yéen xam naa fu mu tëdd it nangu na ko te te yàlla seere na ko barke Sëriñ Bamba kon ñu ngi ñaan taxawaay bi yàgg te fa mu tëdd gënal ko fi mu jógee mhm. yàlla na rëcc li mu doon ñëwee ci àddina mhm. yàlla na rëcc li mu doon ñëwee ci àddina tey jii perte bu mag la mhm. ñu perte ku mel ni Mamadou Yatassay uh-huh. lu lu bànqaas bu mag fàqeekoo na ci réew mi parce que li muy def en terme emploi en terme de sociale Euh, boo gisee ndaw ñi mu employé. ci ci ci usine am boobu di Aquatera rek war nga xam ne kii euh, ku am njëriñ la ci Sénégal donc Sénégal perte na nit ku mag lan nga ñu mën a wax tey wala benn témoignage nga ñu mën a defal. Mm-hmm. ci Mamadou Yatassay. Mm-hmm. perte bi mu bi nga xam ne am mm-hmm. senegal am na ko. senegal perte na nit ku baax. Sénégal perte na nit ku bari valeur. Sénégal perte na nit koo xam ne. boo gisee may wax naan nit njariñ ci tele bi naan nit duñ ko maafe duñ ko yaasa duñ ko macaroni duñ ko nambe nit njariñ Mamadou Yatta Saay tax may wax fexe na ba ku ko yàlla booleel jariñ na la waaw moo moo tax moo tax moo tax dama dama dama yeewu tey suma lal ma jooyi waaw ma jooyi ma jooy ndax man lépp dañ ko ànde maak moom di ci guddi bi ñuy reerandoo di joxante rendez-vous mercredi kii fa la ma fekk ak kii far yàlla dogal mu wooluñu pour waxtaan ak ñun ndax yéene goo xam ne amoon na ko ci wàllu politique. dëgg la ñu waroon a xëy mercredi def point de presse mottali yéene ji ndax kat bëgg-bëggam ak yéeneem moo doonoon jàppale Amadou Ba. Hmm. Amadou wax na ko démb carte générale ci télé bi woo ñun ñii. waxtaan ci ak ñun. dëgg la ñu ne ko kat ñun moom yaay sunu bopp yaay sunu làmmiñ yaay sunu nopp. ñun yow loo wax lan wax loo wax wax nu ko ndax kat kenn du joxe làmmiñ di rot ci bopp kenn du joxe bopp di rot ci làmmiñ waaw nit moom dugg naa ci pax bi bàyyi naa sama gen ci bi duggoo ndax buñ ko fekkee ba bombardé ko dootoo ko dolli. Mm-hmm. ma ne ko ñun yow la am loo wax la ñu wax loo waxul waxuñu ko. dëgg la mu ne ñu nañu waajal mercredi 19h ñu daje siège ñu ndogoo fo buñ ndogoo pare ma dajale presse bi ñu communiqué. ba maas mii seere na ni bokk na ci ñi ma jotoon a contacté ndax man sama soxlaa presse bi mënu ma woo ñëpp maas laay woo na ko woo ñëpp mu woo ñëpp jot naa maas ma ne ko mercredi après ndogu fekk leen ma siège ba maam am bu ma def ndax président yi day ànd ak Amadou Ba te dañ ko war a wax rendez-vous bi moo doonoon après ndogu ma def déclaration bi te bu ma koy def moom day toog dix-huit heures une heure avant ndogu ci la daanu pique crise ñu yenn yóbbu hôpital noonu laa fa bàyyi ndogu bi bàyyi fa mbooloo mi ànd ak doom ji Cheikh Etasaay ñu jubali fi nga xam ne mooy clinique Bellevue ñu yegg médecin yi def ci li ci war daal di koy hospitalisé mu nelaw dugg daal coma heure bi ñu yegg si 18 heures mu dugg daal coma 18 heures la lendemain du jeudi ci la chitewaat daal di defaat beneen crise ci biir nelaw bi diggante fi ñuy ndogoon na après ndogu jot na ci la def arrêt cardiaque génn àdduna muy lu méttee méttee méttee méttee métti loo xam ne ku ko jegewul bokk ci njabootam mënoo xam méttit bi waaye Sénégal moo ñàkk ci wàllu emploi dex il avait plus de six mille employés dans ce pays barke Cheikh Saliou Faye Diakhaté yoo xam ne ñii ngi ak waa ci ndox mi mais ñii ngi ci yeneen barrage yu bokkut ndox mi ñii ngi ci sud kii bi euh, ni ñu koy waxatee waay euh, sous région bi ay Mali ay mm-hmm. Gambie ay Mauritanie yëpp ak waa Teraanga fa woon samp ay doomi réew mi ne fa di fa liggéey mm-hmm. mu jëlee leen fii Sénégal affecté leen foofu ñu fay daan seen doole weer dee ñu feeku du yónnee seen i njaboot la tey jàmbar jooju moo daanu waaye tey ñi daan euh, ci daanu gi tey lim lim dimbali ci wàllu emploi dimbali ko ci riiw mi ci wàllu social dimbali ko ci réew mi ci wàllu jëf ju baax ak wàllu wax ju baax mais yërëm doomi aadama yi keroog bi mu ne li dugg ci politique Angleterre la ma fekk dama ko ne président mënuma naa dugg ci politique politique bëri na fitna bëri na coow bëri na xeex moo showbiz a yam te moo gën a métti showbiz ndax alal dina ci politique nekkul ci showbiz te fu alal bëri ren te bëri fa fu jamaa feeñ jàmm du fa am fu jamaa feeñ jàmm du am moo tax ma ne ko alal ju bëri ji nekk ci politique moo tax nit ci politique yee gën a sadik nit ci showbiz yi bàyyi politique bu ci dugg mu ne ma politique ma pour xaalis politique ma pour tur damay politique pour dimbali suma réew ndax li may jot ci carte de soutien li may jot ci wàllu ndimbal ak social te yor entreprise kese nekk chef d'entreprise tey bu ma nekkoon njiitu réew dana gën a yomb ci man bàyyi ma tàbbi ci langue gi lu ñu am jël sante ko yàlla ñu tàbbi ci bi muy démarré fekk ma fi Angleterre la ma fekk mais bi mu ñibbisee damaa dabe ñoo fekk ci liggéey bi ñu ànd liggéey bi ba keroog muy génn àddina waaye ku ñàkk rek man ngay jàppale kii xam na la may wax ñu ngi ni toog xam nañ la may wax ay collaborateur am lañu ay partisan lañu nekk ci parti am ñii xam nañu ne Mamadou lu waaye sa bëgg ci moom ci man ngay jaar. maa ci xam dara loolu ndax maay bakken bi gëmewu ma. billaahi mu bëgg ma ba gëmewu ma bëgg ma ba ay soxnaan danga nga mujjee yéemu ci cofeel ak yëg-yëg ak yéen a ji maam ci man. billaahi luñ soxla ci moom sax dañ naan noon nañ bàyyi ba Omar ñëw daa am faiblesse am daa am faiblesse Omar. moom lu waay mën a wax moom beñal la ko yow baal ba Omar ñëw rek nga teg ko ci loxoom moom dossier bu dugal day yàlla. ma boole ko man samay dossier bopp man personnel man damay ñëw indaale ay dossier jàmm ñëw naa ko asana ah, sa dooma de foog nga jàppale ko mi ngi ci nangam ak nangam taxul ci ay mbiram roof ko dugal dossier Assane dugal dossier Samba dossier Demba pare teg samay dossier xam-xam nga ne kooku sonal naa ko te terewul da koy def ni ma ko bëggee damay gis ak moom du lundi au dimanche amul bis bu mu dul gis Mamadou Yatassaye de vingt deux heures à heure parce que man aw ma fréquentation man dew ma fenn man da ngay nekk ci milieu bi ma ci milieu bi tuddoo ma gis parce que aw ma taxawaalu ak la mbal la mari fu ne nga dugg fa man ñaari kër laay dugg ci Ndakaaru kër président laa fay dem ba six heures wala kër président moomu yet saa yi de vingt deux heures à zéro heure bi maa ngi samay business wala ma dem deux civi daan sama doole dem liggéey waaye terewul chaque jour de vingt deux heures à minuit damay dem reeroon ak moom ngi toog waxtaan fa laay nekk ba minuit ma déparé fa ñibbi sama kër sangu changé la noppalu ba deux heures du matin ma yeewu dem ko président Waly falaa nekk ba cinq heures wala six heures doo ko mais amul benn guddi bu ma se rëcc bu ma toog a président Cissé te ñibbi jot rëkkatiwul cent mille francs dama essence. il m'a donne chaque soir cent mille francs chaque soir. amul tëbal guddi gu jot mu jox ma cent mille du lundi au dimanche. te bokkut ak bi ma falee chargé de communication def ma ambassadeur ak Ouattara tous les fins du mois il m'a payé trois millions CFA. mi ngi koy signé Daado Jara mi aawam mi ngi toog. baaba muy chef comptable mi ngi toog Cheikh Yatta Saay miy doomam mi ngi toog Souleymane mi xaritam di mbokkam ñu bokk Medina Gounass mi ngi toog mu defaral ma contrat mu signé ma signé ñu jël sama carte d'identité jël carte d'identité li ngeen ma gis may ànd ak moom yëpp aw oh, kii mi ngi toog kii kii kii ce sont mes amis kii kii mooy père Birima ndeysaan ndeysaan kii mooy père Birima père kaay toog kaay kaay kaay kaay toog kaay toog kaay toog kaay nañ busante rek mu catal kii kii mooy père wax ni yaa koy dëggal que ni de 3 millions bi mu koy signé yaa ngi ko woon toog. waaw loolu de am ma si xam. moo ko fekk ba ma naan ko moom si bañ bul signé def man maa ngi sa ménageur bu ma jàngal li ma wax. ma ne ko maa ngi sa ménageur bul signé. Mhm. ndax li ngay am si moom. ëpp na loolu. Mamadou na ko ne ma sa yoon nekku si bàyyil mu signé ndax looloo ba arrangé nga xam ne weer ba weer laa koy fay mhm. waaye kenn la si Mamadou. kon dëggal nga ko. waaw xam la kenn la si Mamadou. lay toog ba mu nekk ko mu ñëw ko papa mu ne ko waaw mu ne ko ñetti weer a ngi fayeeku Mamadou nag ah yow bëgg dem bu jox ko ah, wala nangam. donc waaye weer kooku weer bële la du weer bi mhm. weer bële la du weer bi mhm. te boobu si weer boobu la. mujj na ñoom ñaar dem nañu ba affaire boobu sax kontatu bi mu koy mujjee jox xaalis moom mii si la ma Mamadou di jox xaalis baabaa ngi nii dafa laaj baaba xaalis baaba jox mu jox ko numéro ba pare wàññil ma na ma jógal nga dem ñibbi ndax teer bi day wàcc te léegi sa yaram neexatul maa ko may ma jàmm tey ji laa gën a mën a xeex waaw mu may daal di ne seex yóbbu ko nga dem déposé waaye kooku benn nit la si Sénégal. Mhm. façon nit ku baax ku nekk xam naa ko waaye ku baax xëy na moom moo di yeta saay gisuma dootu gisatuma doo yaakaar naa ne si àdduna li des sama àdduna dootuma ko gis. waaw jërëjëf xam nga bi may bi may wax xaw ma woon ne kii rakkam la kay toog ki ki kii kii magam la magam la ñoo bokk ndeeg bàyyi ñëwal nga toog waaw xaar xaar xaar xaar xaar may ñu lii ñuy def nii télévision la du programme da dafa am yoon meññu rek ñu yeggali après boo xajee di nga barkeel kii magam la ñoo bokk ndeeg bàyyi Aliou Yata Saay la tuddu bu ma sax la bëgg ci Mamadou ci man lay jaar mi ngi ni toog man lay woo ci ruq bi na ma sa copain a moom de waxal moom nangam ak sàngam léeg-léeg mu ñëw Mamadou indil ko ay jafe ko ci ay problème mu woo ma laax ma ci moom gars yi dañuy dem rek wax ko ay wax mu dugal ma ci ay jafe-jafe dama nga wax ak moom man dama wax ak moom ne ko Aliou Samaga jox ko cër ak koo mën a doon ak loo mën a doon ak loo mën a am munoo mag Aliou naa Aliou kaay Aliou ñoo toog ma ne ko mi ngi nii toog wax na ko la ma koy wax bàyyil mu sedd jeex na joxante nañ loxo mu ree Aliou ree ñu kottante nday saan yaa ma may ñu kaf fooree mu yëkkati ay xéwal jox ñu pare ku na dem tey cër bi mu ma joxoon dafa dem ba amul mbokku deret amul mbokku mbedd amul soxna amul doom ñëpp xam nañu ne Mamadou amul sago ci Omaro man nu ngeen gis ma mel ko ci nit rek leen njort ne moo mel noonu ci man moo waral bi mu daanoo àddina sëpp mën lañu xalaat réew mépp mën lañ ko jaale ba ci présidence son excellent président Macky Sall ak jabootam man la ñu woo jaale ma ki nga xam ne mooy président Macky euh, président Mamadou Yatassaye parce que xam nañu taxawaay boo am solo bi ma amoon ci moom chef d'entreprise yi kilifa yi réew mi waa waa waa culture ñu yëgu ci showbiz artistes yi président Wally mi ngi ci yoon bi départ na noonu léegi mu yegg si boo metu balaa entretien bi daanu di ngeen ko fi gis yaa ngi dégg suñu papa Kéba Seck léegi la dem suñu papa Ndeer Aliou Ndeer ca tàng-tàng bala la yegg si suñu papa Salam Diallo ca tàng-tàng ba la yegg si parce que moo leen ko ji ndax moo daan jël alalam di ko dugal ci seeni i grand ci seen i ci seeni i ak ci seeni i dîner de gala moo tax ma ne la tey Sénégal moo ñàkk waaye barke Serigne Bamba kenn ñàkkul ko dul Omaro man mii maa gën ñàkk parce que man man kooku dafa yàq sama àddina mm-hmm. Mamadou Yatassay Aliou Yatassay mii di magam xam na ni lim ma tàmmal moom moom moom wax dégg yàlla du ma nit ku ñàkk jom du ma nit ku bañ a liggéey ndax fukki at ci maa ngi liggéey 2013 ba 2023 2024 maa ngi desi si fi daan sama doole weer dee Alan Ndiaye di ma fay maa ngi ak samay sponsor maa ngi ak samay partenaire ambassadeur laa Kapay porte parole laa ci président Waly Balago Seck ambassadeur laa ak waa Terra ak ci yeneen i barab yu bokkul yoo xam ne c'est privé kon xam nga maa ngi liggéey mais dawala ne li ma mooma du mënal liggéey mënu ko ba leer na li ma mooma du ma naan liggéey mënu ko li man ci man mbindeef buy dund bu sa bopp jëm kaw sa tànk jëm suuf mënoo ko ci sama jëf ji te da koo def ci man ba daanu ba vey bi ñuy mujjee gisee teraangaam ngi jóge ci moom di ñëw ci man paa bi fi toogoon léegi fekkee na ko kii fa la ma bàyyi bi muy dem ah, Assane mii fa la ma bàyyi bi muy dem kon su ma la waxee dëgg mon frère mon fils euh, wéet naa nit ku baax nitu valeur waaye weet naa as gor bu ma daan dimbali ci suma liggéey ak suma carrière barke Serigne Bamba posé wu question wu relève bi mm-hmm. est-ce dina am ko ko mën a assuré entreprise yi fi yoroon mm-hmm. donte am na taawam ku fi mm-hmm. nekk war ko mën a assuré euh, ak aussi projet yi mu amoon moom Cheikh Yatassay ci politique bi ci social bi ci emploi yi est-ce que am na tey ji koo xam ne dina mën a téye euh, dëgër laayam ndeysaan na fi doom ju góor ju mag ju tollook man ju ñuy wax Cheikh Yatassay waaye bàyyi na fi ay mag ndax Mamadou mooy caar daan Alioune waaw mooy caar bàyyi na fi ay mag kii magam la Modou du mag à l'âge de 48 ans la dee 1976 judd xale bu ndaw la yàllaa ko jëmmal rek may ko kilifa def ko dara dañu koy wax papa waaye xale la kiyee ko mag kii toog moom ak Mamadou waaye rafet nañ njort ni Alioune mii du toog di seetaan vieille tasaay du toog di seetaan keneen ak keneen ci ay mbokkam di ay magam duñ toog di seetaan danañ jug takk seen digg bu nga seen doom Cheikh Yatasaay mi nga xam ne moo doonoon bras droit am doonoon léppam doonoon ñu buux ko bugge ko ci liggéey bi sama classe gi classe su Assane gi nga xam ne fekkee ñu ci boole ñu ñëw jàpp ci ngir entreprise boobu bañ a laal suuf ndax day sama gàcce la man ma dund yëg ne ak waa Terra tëj na sama gàcce la ma xëy suba dund yëg ne ak waa Terra daanu la ba tax na lu ma ci man ci wax ak ci jëf ak ci collaboration ak ci ay relation ak ci communication danaa ko ci def ngir ak waa Terra jëm ci kanam ngir ki ko moomoon. waaw. waaw c'est normal parce que euh, man li ma yëg di ma téye jaag bi ànd ak moom mm-hmm. ndax dama ànd ak moom ci bànneex mm-hmm. muy neex ñuy kaf di foo di di lakk xar yi di ko boroset di ko roof di naan ji di naan kafe mm-hmm. mu xëy daanu ma ànd ak moom ci clinique ba assisté ko ci feebar bi fanaan ak moom ci clinique bi mu tëdd ci kaw ñu samp ko ay batil samp ko ay bagage ma tëdd ci karo yi fanaan ak moom bu bët set ñu yeewu yàlla jël ko dama ko war a bunge si suma ma dee as gor waral ma topp ko rek bunge ko bunge ko bunge ko ba téye ci jaag bi ba dugg ci pax bi ba jëbbal ko boromam doo ko wane ginnaaw dem boo wane ginnaaw dem rek laa xam ne man ñàkk naa boo wane ginnaaw dem mooy moment bi ngay wax nii ci laa xam ne man moom pare naa ci waaw ñàkk naa ñàkk naa bàyyi ñàkk naa xarit ñàkk naa doomu yaay waaye ñàkk naa nit ku ma mën a assister nit koo xam ne lu ma am ci àddunaam ay bëti omoro di weex ay bëñ a Omaro di weex moo ko gënal mooy ne Omar na ci jàmm sama fitna ak sama xat-xat ak sama jafe-jafe du ma jege du ma jege parce que bu koy seen di ko dogaale kon tey li ma yëg mënul ñàkk ma yëg ko li ma jooy mënul ñàkk ma jooy ko li ma naqari man ta ñàkk mu naqari ma parce que ki génn ci man moo foor ba tax da maa ngi ñaan yàlla euh, sàmmal ma sama kóllëre ak moom ba àdduna ak àllaaxira yàlla bu ma ko fàtte yàlla bu ma fàtte njabootam ndax daj na ci man loo xam ne même bu duddoo war naa ko topp jëmee ko ci njabootam ndax sekk na ko ak man kon maa ngi koy ñaanal suuf sedd ci kawam yàlla yërëm ko te yéexuñu